moo géet moo bokk bës bi weer yi gannaaw ba ko ñëpp di waxtaanee woykat yi di koy woy muy génne ay biyem di battre ak joor si suuf moo géet nag daal dinay xamle lu bëri ci dundam rawatina rek lu mu am ci alal ak na mu ko amee moom mu mee nag turam dëgg di Mouhamed Diallo ay atam toll si fanweer ak ñaar juddoo fii si Dakar ca zone B daal dinay xamle rek ni laataa muy dëkk états uni dafa doon faral di dem ak waajuram bu góor bu ko doon yóbbaale ci voyage d'affaires amee rek bakk waajuram bu góor ne ko foo bëgg a dem mu ne ko rek États-Unis te hésité aussi benn yoon donte sax nee na bëgg-bëggam mooy des Sénégal waaye nag dafa fekk ne États-Unis dafa nekk réew ba nga xamante ne nii rek da nga fay amal facilement ay business ba loolu weesoo mu ne sax ba mu fay dem fekk na rek mu gën a nekk xale ba rek lu nekkoon ci boppam du lu dul def ay shopping di doon tamit xalaat nee na benn yoon lii di avenir am rawatina fondé famille lu ñeel nag naka la doonee nee na dafa a am am chance rek comprendre ne marché action yi mooy baax baax bi ba tax rek mu soo soobu ci wàllum bourse ak immobilier ba tax rek mu am ci tey lii mu am waaye nag nee na ñàkk na si it xaalis bu bëri boo xamante ne nii rek bu ko doon xayma ay milliards lu dul jeex la ci noonu mu ne sax daf see àndoon ak gëm ndax rek des fois da doon investir perte débrouillé waat ngir duggalaat xaalis ba tax rek mu teel a am li mu am tey ngir am nag alal ci lii di bourse yi géet nee na rek da ngay dem ak nature bi laata muy naan euh, bu jëlee exemple mën ngaa jënd ay action orange mu am rek client yu bëri tey wala rek nga jënd si beneen euh, entreprise nga xam ne ñetti weer ci kanam day euh, fructifier capitalam bu ko defee nga mën koo rek jaayaat ba loolu nag weesoo la xamle tamit nii rek ay risque yooyu jël la ndax rek mën nga see investir téeméeri million si suñuy koppar daal di ñàkk lépp ba tax na daal moom si ndoxteel bi nee na rek xalaatul woon lu mu ko mën a jural si noonu mu ne ba ko benn xaritu tubaabam waxee rek mbirum action en bourse yooyee la jël rek décision daal di siy def juróom fukki million si suñuy koppar yu mu partagé ak Google ak tamit Yahoo nga xamante ne ni nee na lépp la perte mu métti woon ko lool waaye itam gën koo jox rek envie ngir mu def lépp ba récupérer ko waaye itam gagné lu ko ëpp moo gétt nee na nag juróom fukki millions yooyee mu si defoon xaalis ba mu dajale woon la nëbboon ko ay waajuram nga xam ne rek bokkoon na si fayub école am atub lëmb argent de poche am bu mu takkale woon la boppam ba noppi rek di investir tamit ci secteur immobilier bi di jënd ay immeuble di koy louer laata rek muy naan investir na sax ci wàllum transport bi ndaxte rek euh, moom moomee dafa bëgg wàllum investissement di entreprendre euh, lu ñeel nag dépense ak folie yi muy faral di def moom nag moo gét nee na loolee euh, du dara lu dul rek lu mu am ay moyens politique am si investissement yu mu def sax ci immobilier moo gën nee na rek gagné na si fukk ak juróom benn téeméer ak 600 si suñuy koppar ba tey rek moo gétt di xamle ni këram ci montagne yi la nekk bu liggéey jee ba wàcc rek ñibbi fa te rek bu xesee dem dootul xamante rek la wax si moom ndaxte rek ba tax na rek ñu gis ne moom muumee day wane wu suy mayee xaalis la nga ne ni moom la yor te rek moom muumee lu tax mu koy def du lenn lu dul dimbaliwaate waaye nag du ñëpp am esprit de partage te rek dafa am ña nga xamante nii rek duñu def lu dul critiquer mu xamle ko laata rek muy naan lu muy maye ay sénégalais rek la koy jox joxu ko guinéen wala namibien wala rek ñeneen ba tey rek moom moom moo gét ne xam na ne sax ne lu leen di déranger mooy rek lu muy jóor koppar gi ci suuf naan bale leen nee na te loolee rek pour fën rek la amuser ndaxte rek moom ndaw bu gëmma boppam la xeex ba yegg si fii tey ba ñu ko laajee nag ñaata kër la am ak ñaata immeuble moo gét nee rek am na kër yu bëri lool ba tax sax konteetul ko laata rek muy tontu ñay naan naan rek nu muy dépensé xaalis bi dafa yomb ba tax rek ñu koy tuumaal ne day yëngu ci wàllum faux billets ak trafic de drogue la mu leen xamal nag moo di comprendre na ñuy am xel ñaar ci moom di koy tuumal lu amul ndax rek xamuñu xaalis te mësuñu koo gis sax ci gént ba tax na rek yoon la ñu xalaatee ni ni mel ñeneen tamit rek di naan koppar googee soxna moo ko moom ndax moom moo am alal moo gét leeral na si tamit ne loolee contraire bi la ndaxte rek ba muy xam soxnaam soosee boobu amul dara ba tax rek tey moo ko ko def ndax rek soxnaam si si famille bu néew doole la sokkee rax si dolli ba ay waajuram di ñëw États-Unis ay clandestin la ñu woon doxoon ba ñuy dugg ci réewum États-Unis jaaree ko Mexique moom nag nee na ñetti doom la am ak soxnaam si laata muy naan rek mën a gëm la ak gum waaye nag mënagul a xam luy xew ëllëg activité yooyee sax muy def ca États-Unis ci action yeeg immobilier yi moo géete nee na rek am na ko tamit fii si Sénégal Paris Londres ak Mexique mu nekk nag en tournée ci ay état Amérique yu bëri ngir rencontrer ay sénégalais moo géete nee na nag dara waralul li ni mel lu dul rek gisee kuréel ya nga xamante ne nii ñoo ëmb sénégalais yi être en contact ak ñoom xam rek seeni ay projet waaye itam seen i ay aspiration ba noppi gunge leen si rek en tant que sénégalais si lépp lu mu mën a donte sax état moo ko waroon a def ba loolu weesoo nag lay leeral ni amul benn ambition politique rax si dolli amul sax temps beeg énergie bi ndaxte rek business am euh, permettre ko ko ndaxte day bouger saa l nag alal mu am moo génnee ci téeméer ak fanweeri million gu dollar war a rek yemoo ko juróom-ñetti fukki milliards si suñuy koppar te rek nee na boolewu si matériel yeeg ay bien immobilier wam nga xam ne bokk na si kër yi immeuble yi oto yi ak li ni mel mu bëgg lool nag ay montre yu bakkane ba tax rek ñu laaj ko ñaata lay jar waaye nag nee na rek lépp mu ngi dépendre ci série bi ndax te rek mën naa wàññeeku tey gën a cher suba laata rek muy naan lu ñenn ñi comprendre moo di montre am yooyu yëpp sax ci bi la bokk ne rek rêveetul dara lépp rek lu mu bëgg na am temps wu def ko ak rek génne xaalis réaliser ko ci noonu mu ne yéen saay sax en tant que nit ku ñuul day dawal oto ci ville bi ab tubaab dal di woo police ndax rek mënuñoo comprendre naka la ko mën a jëndee te tamit nee na sax mës naa rek dugg ci benn boutique de luxe ñëpp rek di koy xool yaakaar ni mënu faa jënd lend coow li nag bëri lool ci moom ak alalam bu muy biral waaye nag moo gën nee na rek moom moomee gëmul bët bu bon ak li ni ndax rek bés dina ñëw mu génn àdduna bàyyi fi lépp ndax rek amul lu dul jeex ci kaw suuf ci ndoonee mu ne nag ndeem mi ngi xàppi waaye nag mi ngi préparé wu tamit au pire ndaxte rek gëm na yàlla te doy na ko ba tax na du ne rek waxtu julli di ko raw waaye nag daf koy fay saa su ne di def lépp la nga xamante ne nii rek diine santaane na ko ndax rek dañu ko see yar seen buntu kër nee na sax dafa amoon ab daara ba tax na rek mënu koo ñàkk jëfee te laata loolu père de famille la responsable waaye itam respectable moo mbiram ak Viviane Chidid rek la tëjee ay kàddoom gannaaw rek ba mu xam leen ni Viviane emblème mu musique sénégalaise bi la mu koy déglu nag nee na lu bëri lool dikku ñongal suñuy couleur nationale ci àdduna bi ba tax na rek moom moo géet bu ko delloowul njukkal du ko jàppal lenn rawatina di am ay problème ak moom ci noonee mu ne nag lu xewoon ca Las Vegas ñàkk déggoo rek la woon te nekkul woon rek ak moom moo géet directement waaye nag ak staffam bi la ba ñu déggoowul woon si yenn mbir yi dàkkal collaboration bi ñenn ñi nag interprété ko nee na nu leen neex tax mbir mi am am ampleur si noonu nag moo génne sax a moom moomee daal dinay tourné boobu les pages xaritu jigéen ñi ak képp ku bëgg lu baax di bijouterie Jam Jam 2 nga xamante ni nii ñu xam or dëgg ñoo fa nekk daaj nañ leen di indilaat ay bagages yu bees tàkk ay bijoux en or yu taaru lool tarkal la macha allah comme ni ngeen koy gisee noonu waa bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen rek ay nouveauté vingt et un Bahreïn ay rek euh, organisa ak tamit ay vingt et un carats indien so demi so yemul foofu de bijouterie Jam Jam 2 indil nañu leen tamit ay nouveauté dix huit carats extra. Euh, super extra Neonoro Pomi euh, Kauro Biling Biling Girodani euh, ak rek Versace ak i rek yeneen yu taaru lool ana ñu doon coow arrivage bu mujj ba xanaa bu ngeen gisee rek lu ñu wàccee waat da ngay jàpp sa gémmiñ cuuma bijouterie Jam Jam 2 daal boo fa demee da ngay mujjee sax am embarras du choix maanaam daal doo xam la ngay tànd ndax rek lépp taaru waaye ndokk rek ba di nga fa fekk ay ndaw yu xam or dëgg ak rek la ñuy def ba dinañ la rek taxawu ba nga am sa bëgg-bëgg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 la ci 77 924 45 20 wala ci 77 542 00 77 boo leen woowee daal lépp loo bëgg rek wa illaa loo yitewoo di nga ko xam ñu nekk nag ci diaspora bi tamit boo leen defee rek seen commande bijouterie Jam Jam 2 fàttewu leen benn yoon da ngeen a mën a jot rek si seen alal ci diir bu gàtt lool yow mi amagul tamit lu mot fàttewuñ la benn yoon mën ngaa dal di ñëw rek def sa commande dal di rek joxe li nga am ñu bindal la sab ba heure rek boo motalee jël sab alal waa lii lu ko gën a neex ak bijouterie Jam Jam 2 daal ku tàkkul or rek ci yow la des daw leen gaaw def seen commande ndax rek ku yéex ñàkk ci bile arrivage bu bees bu taaru lool.